trahison gi warante gi am na ci langue politique u Sénégal tamit loole war nañu ko lijjantee ma xam ne moo am ci ñi nga xam ne wax ju ñaawa ay débat yoo xam ne kenn xamul la li niru au lieu que ñu taxawa wax loo xam ne njariñ lay doon ci réew mi duñu ko defa maanaam saagante di dugg ci vie privée jàmbur loole la ñu gisa ñenn ñi moom dem nañ sax bay théâtre réew mi ko di jenne na lii nga xamante ni daal jamono ji mën nañoo wax ne moo yàq li nga xam ne mooy espace politique bi ci Sénégal dañ koo war a nag yi ndax lay raam sañ ak bala jëm te bu fa amee kër du baax yéen a kaay gi di enquête xëy ñu xibaar naan ñu altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmale la ñuy installé assemblée nationale loole nag tax na député yi nga xam ne ñoo bokk ci benn bokk yaakaar ci week-end bii ñoo ngi ci diiwaanu Saly su ko defee nag altine ñoom ñëpp ñu dugal leen ci ab bus gurgur leen daal leen di yóbbu directement assemblée nationale dañuy bañ kenn rëccee waaye nag li am ba des intercoalition Yewwi Wallu ñoom seen chance bëreetul ngir nag gañe li nga xam ne mooy njiitul assemblée nationale li nga xam ne moo ko waral mën na la diirante mbagg diirante mbagg xëccoo bu tar moo am ci yewi wallo te nag loolee baaxul si ñoom day tax benn bokk yaakaar mën na la gagné facilement kii jiite assemblée nationale ndax nag xëccoo moo ci am yéen kaay gi di direct xëy di ñu xibaar mën na la implosion bu amee bu mu leen bett tas tasar bu amee ci intercoalition wàllu Sénégal ak yeewi ndax déggoo ci seen biir jamono ji munta am yéen kaay gi di libération xëy di ñu xibaar naan ñu Karim Xurum Xaq ak Cheikh Omar Diagne ñaar ñii soo muy tuulee nag kaso la ñu jëm ndax nag procureur sàkku na si doyen des juges ngir nag mu daal leen di mandat dépôt maanaam jël leen yóbbu leen sa kaso bu rëbës démb nag ñoom dañoo am retour de parquet yóbbu yóbbuwaat leen commissariat altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal la ñuy jàkkaarloo nag ak doyen des juges ndax doyen des juges dina def li nga xam ne mooy bëgg-bëgg procureur waaw wala déet yéen a kaay gi de la soleil nee na ñi nga xam ne ñooy élèves yi boo ñu waaj nag école ubbi na juróom benn fan ci weeru octobre la école di ubbi yéen a gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu secteur privé bi nekk ci réew mii di Sénégal ma ne la secteur privé national bu Sénégal démb nag wax nañu ndax lu toll ci fukk ci organisation ci ay kuréel ñoo jana woon ak taskatu xabaar yi doon wax ñoom jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel ma ne la wolof njaay nee na ku nar a dee wéqo wax nañu ci lu jëm ci seen ndorteelu wax lu jëm ci wàllum stabilité politique ndax gis nañ ne politique bi dafa yëngoo waaye tamit wax nañ ci lu jëm ci wàllum stabilité économique gis nañ ne crise économique moo ama nee nañu séparation pouvoir dañ ko war a sàmm ci réew mi waaye tamit respecté li nga xam ne mooy sunu institution yi loolee lu war la waaye tamit sàmm li nga xam ne mooy sunuy valeur lii la secteur privé ubbee ni ki démb yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na patronat bu Sénégal ñoom nag alerté nañ nguurug Sénégal ci lu jëm ci wàllum crise économique bi la laas yéen kaay ne na entreprise yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñoom nag nee nañu jafe-jafe yi nga xamante ni moom la ñuy jànkoonte la loolee ñoom nee nañu mënatul wëy yéen kaay gii di 24 heures nee na secteur privé bu Sénégal nee nañu nag Macky Sall ci boppam su bëggee entreprise nationale yi jël ay employé yu bare bare bare il faut nag ñu daan leen di jàppale yéen kaay gi di la turbina xëy di ñu xibaar naan ñu màggalug Touba gi soble moom nërta manqué ndax lu toll si ñetti junniy tonnes soble danañu ko yóbbu Touba yéen kaay gi di l'Observateur nee na Macky tey ji lay dem Touba waaye délégation bu ndaw lay àndal réew mi ko di jeex xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ak waa Yewwi Askan Wi ñoom tim démb ñoo nga woon Touba gi nag Sonko jaajëfal na askanu Touba ndax nag Sonko nee na leen yéen waa Touba ci élection yii ñu weesoo wane ngeen seen bopp ndax nag ñii nga xamante ni ñoom lañ dénk nguur gi maanaam lu ne def nañ ko mënuñu leen a jënd mënuñu leen a gera yéen kaay gi de la sa nee na nag Macky Sall lu toll ci six cent milliards ci infrastructure maanaam def na ko Touba waaye taxul mu gañ a de yéen kaay gi di Vox Populi Ousmane Sonko démb bi mu ziare Serigne Mountakha ba pare moom ak délégation Yewwi Askan Wi Ousmane Sonko dafa retourné waat Dakar ñi nga xam ne nag ñoo des ci yeewi askan wi dem ziyaare ji Serigne Sidi moom Serigne Abdou Lahad ak Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre waaye Ousmane Sonko nag gars yi nee nañu dafa zappe Cheikh Bass Abdou Khadre lan moo ko waral jege ñaale Ousmane Sonko nee nañu Ousmane Sonko daal ak délégation yeewi bi ñu ziyaare Serigne bi ba pare Ousmane Sonko dafa am urgence Dakar bàyyi waa délégation yeewi ñu continuer seeni ziyaara yéen kay gi di Sud Quotidien nee na taw yi nga xam ne tawaan na ko Ndakaaru loolee moo tax askan wi nga xam ne ñoo yeewoo Ndakaaru maanaam seeni jafe ma ngay wëy ma ne la ma ngay gën di yokk jafe-jafe yi ma ne la wàññeekuwul dafay gën di yokku yéene kaay laas nee na nag li nga xam ne moo am ci wàllum inondation yee saafara ko jamono ji jafe na lool lool loola kan moo xam solution yi saafara nag li nga xam ne mooy inondation yee solution yi la yéene kaay gii di laas xëy di laaj yéene kaay gii di lay zeko xëy wax ci Sitor Ndour mi nga xam ne moom la ñu tuumaan lu jëm ci wàllum viol ay avocat am démb waaw dañu doon ñaan lu jëm ci wàllum histoire lu tax Ousmane Sonko ngi nii dañu ko tuumal te nag mbàyyi nañu ko def ko liberté provisoire contrôle judiciaire yéene kaay nee na Edouard Mendy goolu Sénégal bii góolu Chelsea moom nag nee na du yokk contrat am ci Chelsea ndax nag dafa gis ne Kepa deuxième gardien bu Chelsea tudd Kepa li muy fayeeku nee na ñaarte na ko deux fois salaire ba loolee moo tax Edouard Mendy nee na waa Chelsea bu ñu bëggee nag ma daal prolonger li nga xam ne mooy sama contrat ma ne la sama salaire dañ koy xoolaat yokk ko ndax man mënumaa nekk premier gardien bu